yes yes salam salam, sama gars yi maa di bëggee len leen len leen watch seen wàccuwaay lu la seen xarit Abdoulaye plus connu sur le nom de soldat docteur Malick Diop maa di bëggee yéen len leen bu ça fait presque une semaine ngi ne suis ci en ligne parce que j'étais en mode de déménagement de doon déménager euh, je suis à Paris plein Paris je suis à Neuilly maintenant. moo taxoon tayem yem gisu ma ci line bi xam nga ma ngi ni ci sama sama site xam nga bagage ya ngi ni ya ma gëna xam xam nga ma ngi ni sama site quoi sama nouveau site bu bees bi moo yeen ñepp ñëpp ngi leen di bëggé bu baax tay dama ñëw ci ben ka khamne bo xamne dafa spécial ka bo xamne c'est extraordinaire ñi nekk France ñi nekk Italie ñi nekk Angleterre ñi nekk Canada ñepp di ci wax dama ci cité ben way Tony Ndiago seigne Fallou boy bobu

Portugal tu penses que tu es en Afrique Portugal parce que Portugal j'ai connu le Portugal Je Portugal moo Portugal, ma ciy wax. Tony Ndiago Je Fall je waxal je information bonne, bon yi ngay joxe nit ñi France Portugal je information ñun xamuñu ko Tony parce que il est temps quoi il est temps wax ak a gars ne TikTok a gars ne Instagram bi quoi parce que nous, ku sa pour le ku nekk sa bopp doy na la misaal maa ngi dégg Youssou Ndour naan ku nekk sa bopp doy na la ndeysaan mais effectivement dëgg la ku nekk sa bopp doy na la ndeysaan y a certaines informations faut pas les véhiculer les gens le savent déjà mais y a certaines informations il faut les il faut les véhiculer ñëpp xam ne lii information bu mat information bu jara jàllee la moo tax tey ma génn ci benn cas bu ci mel le cas les les Canada les visas du Canada. <laughs> affaire bu Grau affaire bu doy wat les visas du Canada les visas du Canada dafa une affaire bo xamante affaire bu yàgg c'est une longue histoire sama gars affaire bu longue c'est une longue histoire Canada mi ngi may ay visa pour les immigrés c'est une longue histoire parce que j'ai vécu parce que nit ki loo dundul mënoo ko faire motax tay dama ko bëgg a waxtaanee nit ñi xam yan disposition lañu wara war jël pour les visas du Canada dama bëgg nit ñi xam ko parce que c'est très important nit ñi xam ko parce que tey jii boo diggee ñu né Canada ni ñu maye visa nga tepp daw dem ambassade Canada do am dara on te donne rien du tout immigration choisie immigration choisie lañ def ñoom dañuy choisir seen immigration lu jëm seen wàllu immigration dañ koy choisir Canada bu ne day maye visa nekkul ku jóg ñu may la visa ku jóg nga dem ambassade Canada ñu may la visa ça n'existe même pas j'ai vécu ça dama ko dund dama xam lu tax may wax may véhiculer message bi ndax jeune yi nekk Sénégal yeewu tuuti parce que j'étais un jeune boo xamante ne dama mënoon débrouiller dama nekkoon Sénégal di góorgóorlu Tay mang ci marché bu teyee mang ci ñaw bi gannaaw suba mang ci téer bi gannaaw waat suba mang ci marché di jaay ay robbu yu kenn xamul ba dégg ne Canada day may visa mu jóg dem ambassade Canada di caayi li fa xew mais rien dama dama bëgg tek jeune yi ci axe ñu xam Canada nan lañuy ñuy visa ki nga ñi di wax ñëpp ils n'ont rien vécu sur ce cas là man dama ko dund dama leen di wax benn aspect bi gën a rapide bi nga xamante moy porte bi gëna gaaw porte bi gëna a sûr Canada bu né dañuy maye visa immigration choisie lay def xam nga lu wax immigration choisie immigration choisie la Canada di def Canada du jël ben nit bo xamné ne day yeew day tëdd ka yew ñu xey may ko visa Canada canadien yi def lool xam nga boo am Canada visa xam nga nan ngay def première chose moy da ngay am métier Canada métier métier li ñuy wër ko am métier am ay bras moom la ñuy wër da am benn nouvelle politique boo xam ne son excellence le président Macky Sall da ko teg ci ci ci ci ci ci raay bi mu ne dafa ubbi pour autonome bu Dakar dafa soxla ay employé pour ñu liggéey déglu leen bu baax li ma leen wax dama bëgg ngeen bàyyi ci xel balaa ma continuer benn benn brèche bu ndaw laa jël ci côté boobu son excellence le président Macky Sall ba mu ne dafa bëgg ay employé pour ñu liggéey ci port bi képp kuy jeune da nga waroon daw dem gaaw.

boko ko formation bo bo deme ambassade Canada nan dañ lay may visa ambassade Canada carte Sénégal bo boko ko yoree dañ lay may visa visa ci bobam lañ lay may xam nga tax ñu lay may visa parce que xam na ne yow ci ñi ñu soxla yow ci nga bok te première chose bi nga wara ñëk def immigration choisie bi moy da nga wara dem chambre des métiers chambre des métiers bi nga xamanteni mo nekk bu Dakar nga nekk bu dee Dakar nga nekk da ngay dem chambre des métiers. bi nekk village artisanal go haute carte artisan mooy première chose bi nga xam ne Canada moom la ñuy carte artisan yooyu gars yi ba léegi waxuñu leen ko ne Canada day maye visa mais waxuñu leen loolu ci biir ndax xamuñu parce que man dama ko dund dama xam li ci j'ai cheminé sur ça l'ordre, dama loolu dama ko dund si vous yi parce que carte artisan fait, village artisanal mu la carte artisan mu xam ne yow mii artisan nga premier première chose ñaareelu yëf bi sa casier judiciaire sa cadre judiciaire dafa avoir une vierge faut yef en plus ce ce, est fi nga xamantene moy fi chef de quartier bi wala quelque chose bu faut non. dafa attribuer une lettre Il xam dafa wara euh attribuer faut lettre wara ne nit bu clean nit bo xam ne am problème quartier bi depuis bi nga ci quartier depuis bi nga lettre de motivation. tey jii chef de quartier bi bu la bind leen hmm. lettre de motivation. merci beaucoup wax na la ne yow kat bi nga nekkee ci quartier bi ba tey jii bi nga juddoo ba màgg ci quartier bi musoo am benn problème ci quartier bi musoo fi am benn jeexi jaax ci quartier bi boobu boo jëlee document yi ma la wax lii di ci mel ni carte artisan village artisanal ngay dem ut fa carte artisan benn ñaareel bi da am métier ba pare am. am certificat de travail da ngay jàngi métier am certificat de travail boo amee certificat de travail ba pare sa certificat de travail boobu nga yóbbu chambre des métiers ñu defal la carte artisan am nga am ñaari carte wóor na la ne yow mii borom métier nga mu nekk ñaar yooyu noonu nga boole kook sa casier judiciaire sa casier judiciaire dafa war a vierge ki nga xamante ne moom mooy sa chef de quartier dafa war a bindal benn lettre de motivation boo xamante ne day wane ne bi nga juddoo ci quartier bi ba tey jii. mosoo am benn benn benn problème ci quartier bi wala na yow nit ku lucide nga nit ku ñàkk problème nga gis nga waaw kontaan naa mon frère Laye Mbaye the king Laye Mbaye kontaan naa <laughs> mon frère kontaan naa Laye bay di gën a bëggee muy wane ne xoolal képp mu wane ne yow nit bu clean nga nit bu set nga koo xam ne amoo problème ak benn benn benn étranger bu nekk ci dëkk bi yow bi nga juddoo ci koñ bi ba tey jii nit bu set nga loolu tey boo ko amee. nga boole kook yii ma lay bëgg a wax nga boole kook NINEA import export registre de commerce gis nga gis eh, gis nga ligne bi mi ngi bëgg a gudd de yooyu yëpp ngay boole ak niveau d'étude il faut nga am benn niveau d'étude boo xam ne il faut nga am ko nga am niveau de d'étude BFEM muy niveau bi gën a baax mu ngi da ngay am niveau d'étude BFEM niveau de d'étude BFEM boo ko amee ak kayit yii ma la boole yii yëpp. boo ko bonee nga boole ko sa compte bancaire te gars yi waxuñu leen lii yëpp de Canada day maye visa rek bàyyi leen ci biir ngeen dem di dem nga nga boole ko compte banquer compte bancaire bi au minimum dina am 15 millions compte bancaire minimum dina am 15 millions am ay relevé bancaire yu wane na yow mii kat daa nga liggéey te daa nga def ci sa réew dara mooy que ne da liggéey. di def sa compte bi dara di dugal di génne compte bi mouvementé ba pare ba pare pare gu ma ci affaire yi bu compte bi commencé mouvementé ñoo xam ne yow depuis tant d'années sa compte mi ngi dox sa compte mi ngi mouvementé yow yaa ngi liggéey nekk nga artisan boo xamante ne am nga carte artisanale yow élection artisan ville chambre des métiers bu jotee président des chambres des métiers du Sénégal bu ñu koy fal yow da ngay dem vote ji ba pare nag da ngay bokk ci association boo xam ne day waral day wane ne yow mii tey jii bu dee téer nga da bokk association des couturier du Sénégal am seen carte tamit boole ci mooy les pièces bi nga war a fournir daal di koy daal jàpp daal di koy yóbbu ambassade bu Canada lii ma lay wax boo ko dugalee ambassade bu Canada dañ lay may visa far force parce que Canada nekkul day jóg maye visa koo xam ne day nelaw ba quatre heures. Canada nekul day may visa ko xamne day nelaw ba midi Canada ku am métier immigration choisie la Canada di def immigration choisie dañoo manqué dañoo manke main d'œuvre Canada manqué wul étudiant kuy xëy di jàngi di wacc manke wuko Canada kuy liggéey xëy di wàcc am seen métier pour yok dekk bi Canada lol lañu manke. motax ñu ne Canada day maye ay visa parce que man je l'ai vécu dama ko dundou je j'avais pas certain niveau d'études Je n'avais j'avais pas eu la chance que je me vise visa Canada encore une fois de plus j'avais pas cette somme d'argent si ça me compte Je mën am compte pour mouvementer, pour xamante Je opportunité ma visa merci beaucoup Dja. Teji, jii yooyu boo demee Canada dañ lay may visa ñu defal le visa immigration te visa immigration bi ñu lay jox Nous visa boo xam da ngay rester au rester Canada Pour la joxee visa vous ngay dem 3 trois mois wala nga quatre mois pour venir si Sénégal Vous ne ni ñëw nga après ça se passe comme ça Moi, je suis en France j'ai passé par le Portugal j'ai passé par le Portugal j'ai fait le Portugal. Je sais comment ça se passe là-bas. C'est pas comme le Canada. La France, c'est pas comme le, la France, c'est pas comme le Portugal. De Ben, niveau et du ben de bi du benn pour tax képp kuy jeune te bëgg ñëw nga Paris la France aussi parce que les en France les en Canada loolu en France moi et watch. wàcc loolu Italie laay mbay sa kiñ mi ngi ci laay fi moom xam na ni mu demee Italie xëy liggéey wàcc moo fa am amul form formonin amul garabu xaalis boo xam ne dangay xëy di ko witti di ko am yaa rien xëy liggéey wàcc tëdd sa kër yow fay location fay li ngay lekk fay li ngay naan fay transport fay beaucoup de choses tey jii mën nañ la jox salaire mille cinq cent euros say impôt say karang-karang bu ñu ko daggee tu, n'auras presque rien. Mais mais tu n'auras rien, ça veut dire que tu vas avoir quelque chose, ce n'est pas trop grand que japonais, ce que les gens te disent, les vendeurs de rêves, il y a des réalités qui se passent en Europe aux États-Unis, il y a des réalités qui se passent là-bas. J'ai vu des gens, ils ont quitté l'Amérique pour, se résider en France. C'est nous tout, tout. Nous de Canada day visa Canada visa Canada fait de l'immigration choisie comme la France comme l'Angleterre comme tout grande puissance du monde li ma leen wax kayit yi ma leen wax bu yeboo ku ci yor bic mbaa nga yor feuille eh, nga noté kayit yi te na ko ut sama prochaine live na nga dugg boo duggee nga wax ndax am am nga wala amuloo te sama live yi na ko gën a partagé mu gën a yaatu ndax jeunes yi nekk Sénégal ngi di jouer xbet ñu bàyyi yooyu yëpp kayit yi ma leen di limal na ngeen ko note bu ngeen ko noté.

muy ñaar ñetteel bi da ngay bokk ci benn association association boo xamante ne ci métier boobu nga yëngu association boobu ci la ñu nekk nga bokk ci association ba am carte membre association bi muy ñett ñeenteel bi ma lay wax mooy que ne dangay am NINEA am import am import export am registre de commerce muy six septième bi. mooy da ngay am compte bancaire minimum minimum ce compte bancaire n'a def 15 millions minimum maximum ce compte bancaire n'a def 15 millions moi septième huitième bi mooy que ne compte dafa mouvementé ce compte dafa war a am ay génn ak ay dugg pour compte bi xawa gonfler tout ñu xam ne ba mu neé ci dëkkam sax dafa daan liggéey kon nak bu ñëwé ci sama dëkk tamit day liggéey. ju euh, huitième bi mooy que ne da ngay dem ca quartier ba nga dëkk muy chef de quartier ba mu def la de motivation lettre de motivation bi mu lay defal mooy que ne bi nga dëkkee ci gox bi ba tey mu soo fee am ak kenn problème mu soo fee xuloo kenn yow nit ku clean nga nga yóbbu ko police ñu légaliser ko nga ut la nga xamante ne moom lañ ciy teg. moy sa cage judiciaire dafa wareef nga wut judiciaire bu vierge daal di ko ci bolé. li ma len di wax bu ngeen ko defee ambassade Canada ambassade États-Unis ambassade Angleterre ambassade bo dugg dañ lay muy visa for force parce que immigration choisie dafa xew waaye dafa am ben pôle d'immigration bo xam dafa xew ci aduna bi moy kané gaay gars ils s'en dañuy mel ay pigeons voyageurs dañuy ñëw bu ci dëkk bi. duñu nangoo xëy duñu nangoo gont duñu nangoo wàcc lépp ay ndimbal la ñuy dundee boo demee porte de la chapelle ci kii bi yaa ngi taxaw foofu di tàllal seen loxo di di di di yalwaan lu ñu lekk immigration boobu léegi tubaab bi bëggatuñ ko tubaab bi bi ñu bëgg mooy kii xëy di daan dooleem di dem di ñëw boobu loolu kayit yi ma leen wax bu ngeen ko déposé ambassade bu ngeen ko mën a ci àdduna dañ leen di may visa far force te mu leen ci dara damay ci sujet je vais partir ci ci coin euh, politique je vais dugg coordinateur de depuis la France coordinateur général des alliances des forces du progrès je suis nuyu bu baax mangi parce que y avait des choses y avait des bavures qui s'étaient passées euh, la semaine passée maa ngi jégalu képp kuy jeune boo xam ne yaa ngi nekk biir AFP maa ngi lay jégalu bu baax ci kàddu yi ma jëmoon jëmale ko ci yenn nit yi maa ngi leen di jégalu bu baax ndax kàddu yooyu du sama du sama cër moo tax képp kuy ndaw maa ngi lay jégalu bu baax a baax sama kàddu yooyu ma fi waxoon leen wax ne leen euh, semaine passée y avait des causeries foofu nga xamante ne mooy siège AFP fii ci Ndakaaru Njaay le président Moustapha Niass notre secrétaire général mi ngi woon foofu moo ko moo moo ko yoroon waxtaan ak professeur Maodo Diakhaté ak notre cher leader euh, docteur Malick joog moom tam ma nga woon foofu ca ca ca causerie ba moo taxit euh, Babacar Sadia Soxna ma nga woon foofu képp kuy ndaw te gëm parti bi ñuy wax AFP yaa ngi woon foofu ci biir parti bi di waxtaanee la nga xamante ne mooy jàmmi réew mi ak jàmmi parti bi ak ëllëgu parti bi. xam naa nag euh, ci yeneen live dinañ gën a détail gën a chercher d'autres informations ci causerie boobu ba mën ko waxtaanee mais sunu leader ki nga xamante ne mooy docteur Malick Diop troisième vice-président à l'Assemblée nationale moom mi nga xamante ne mooy borom fukki penc ak ñaari moom mi nga xamante ne mooy borom ndakaaru moom mi nga xamante ne bu jógee ndakaaru jóg bu toogee ndakaaru toog ñu ngi koy nuyu bu baax di ko beral nuyu di ko wax ne ko ñun li ñu gëm mooy li ngay def muy liggéey docteur Malick Diop li nga gëm li ngay def ñun mom lañu gëm moy liggéey képp kuy ndaw da nga wara roy ci docteur Malick Diop ci doxalinam ci comportement am envers les sénégalais ci comportement am envers ak nit ñi parce que dafa am solo nit du doyee nit du dul jamm ak salam kon képp kuy ndaw da nga wara roy ci docteur Malick Diop ci comportement boobu moy ak ki nga xamantene moy notre notre ami notre grand frère de Ousmane Sambou le jeune leader Ousmane Sambou xamna leader, le sénégalais leader, xamuñu mais xamnañ turam Ousmane Sambou le jeune leader borom Mermoz Sacré-Cœur borom borom Niarach, jeune borom commune face, leader, pekolo borom Dakar lak wax Ousmane Sambou Ousmane Sambou borom Dakar xamna leader, le ci kanam touti leader, am yeneen information ci Ousmane Sambou gën ko léral sénégalais euh, c'était un jeune c'est un jeune ba nga il a fait ses études au Sénégal Sénégal la jàngee Sénégal la yoroo Sénégal la màggee Sénégal la réussir à Adnam. tey boy lim ci jeune yi gëna a réussir ci Sénégal dang ci bolé Ousmane Sambou parce que tay na yaroon na dal na tout ça mi ngi ko défé Sénégal kon nak jeunes sénégalais yeen lay waxal yeen ñi nga xam da ngeen am ka nga xamante ni dafa ubbi ay buntam pour la réussite de demain moy son excellence le président Macky Sall pour la réussite de demain pour tous les jeunes sénégalais qui nga au vivre Sénégal dama bëgg ngeen voie parce que ku nekk am na mais nit bu ubbee buntu réussite da ngay dem jàppale ko ci réussite boobu ànd vous avez réussite de parce que le parce que docteur Malik Diop c'est un jeune. Le président Macky Sall, c'est un jeune. Ils ont fait euh, cette longue coalition, la coalition Beno Boko Yakar, pour diriger le Sénégal. Euh, demain, Inch'Allah Aujourd'hui et demain, Inch'Allah De nous, tamit, qui nga xamantene, moy ki waral ciow lepp nak, moy Aïssata, la lionne du, du euh, président Macky Sall. Aïssata, la vice-consul, le vice-consul, ma ngi lay nuyu bu baax ak sam ka nga xamantene moy Kumba, madame Welé Kumba, Kumba ma ngi koy remercier mom mo euh, Fille du consulat général du Sénégal mmh. merci de képp bépp jeune boo xam ne France te te sénégalais si tu as des soucis au niveau de la France na nga dem consulat général du Sénégal nga laajte ani madame Wele wala nga laajte ani Arona boo demee nga madame Wele wala Arona bépp soxla boo am fii ci France consulat général du Sénégal nan la sa parce que Amadou Diallo c'est un jeune sénégalais bo xamné Sénégal Sénégal France Nous, fi service di li nga Sénégal mu conseil consul général mu gérer jeune sénégalais di ci problème bo am bo Kumba madame qui souffle milieu mi au deuxième étage à gauche à côté de l'ascenseur boo laajtee Kumba madame Wele nga ne ko dama am problème sangam dama am problème sangam consulat bi dina ci taxaw fajal la sa soxla ba sa soxla yëpp faju te doo ci am ben problème qui di vice consul di Aysata jàppulo Aysata sa taxawaay rafet na nañ koy te dé même buñ may mere sax on le dise sa taxawaay rafet na ñu lay remercier je le remercie encore une fois de plus nous avons un consulat qui est ay Marseille nous avons réglé ce problème du consulat parce que c'est des choses à dire c'est des choses à dénoncer Sénégal France na nga consulat général du Sénégal vice consul Aïssata di nga fa que un consul général nous avons am continuer avec docteur l'ami du président Macky Sall, le fils, le digne fils de Mustafa Agnès, secrétaire général de l'AFP, docteur Malick Diop, ci kaw ci kanam ndax fi je suis un jeune politicien je milite pour le parti de l'AFP et je suis fier aussi euh, d'être derrière docteur Malik Diop tiituma ci ragaluma ci te delewuma ci ginnaaw ben yon. docteur Malick Diop

ça me fait vraiment plaisir sais que les sénégalais ce que wax dis, nous koy safo, nous sommes koy nous sommes ngi koy tiitaroo jeune sénégalais maa lay wax le DG mal le vice troisième vice président à l'Assemblée nationale docteur Malé Diop il est prêt pour cette jeune génération sénégalaise pour le Sénégal de demain heure bu travailler ensemble, ceeb bi Kourabi, Ndorbi location bi docteur Malick Diop ci loolu lay kaas ci loolu lay dox ci loolu lay wax te lepp nak bëgg lu neex sénégalais di dox ci soxlaay sénégalais di daw ci soxlaay sénégalais yi guddi ak bëccëg motax dañ ne groupe whatsapp yi léegi bàyyi nañ ko dañuy ñëw ci live bi wala ngeen dem fekk ma YouTube Farokh TV ci kanam tuuti dina commencé dem ci YouTube bi maa ak YouTube Farokh TV fala affaire yi gën a xoyam xoyamee xam naa inshallah allah fee ci kanam tuuti nañ gën a yaatal ma leen waxaat encore une fois de plus visa Canada yi ne vous précipitez pas këyit yi ma leen jotal li man da ngeen ko wut te vi te bu ngeen dem ñu di may visa man ce qui m'avait bloqué mooy que ne certain niveau d'étude bi ñu doon demandé dama ko amul woon moo tax aw visa Canada mais yéen jeune génération bi nga xam ne yéen a nekk Sénégal di ay góorgóorlukat yéen ñi nga xamante ne seen life da ngeen koo jàng nekk ay jeunes étudiants nekk ay jeune entrepreneur maa ngi leen di ñaan ngallaawaay bés bu ngeen demee bu leen toog dem leen te ñibbisiwaat xam ne le Sénégal de demain c'est le meilleur Sénégal le Sénégal de demain c'est le meilleur Sénégal man loolu lu ma gëm la sama gëm-gëm la te maa ngi ciy liggéey te ñu ngi ciy liggéey avec notre équipe l'équipe de docteur Malick Diop l'équipe de Ousmane Sambou, la boo goos a Dakar dama bëgg sénégalais yi xam kuy docteur Malick Diop kuy Ousmane Sambou. c'est un jeune simple humble nangoo liggéey gëm Sénégal dama bëgg ñu dugg ci YouTube yi di tàppe Ousmane Samb bras droit de Malick Diop ñu xam kooku mooy kan kooku lu muy liggéeyal parti bi lu muy liggéeyal sénégalais yi seeni soxla nekkul ci lu dul dox ci soxlaay sénégalais yi ceeb bi diwlin bi ndox mi courant bi euh, location bi ci loolu moo ñu tax a jóg te ci loolu la ñuy dox te incha allahu rabbi fii ci kanam tuuti di ngeen ci teg seen bët jeune génération bi nekk France moom sama wax ak yéen lenn la rek ku ci am soxla demal consulat général bu Sénégal Kumba madame Wele mi ngi foofu boo demee sa soxla dinañ ko faj ci nii baa ñu faj ko ci nee bu dee xaalis nañ la ci jàppale ba nga doyal sëkk bu dee ay kayit nañ la ci jàppale ba nga doyal sëkk sama mbokk sans papier yi loi bi nga xamante ne ñu ngi koy dugal loi bi nga xamante ne état bu France mi ngi koy dugal. yéen ñëpp daw leen consulat général bu Sénégal képp kuy jeune te nekk fii France loi bi nga xam ne état bu France mi ngi koy dugal yéen laay wax te état bu France mi ngi koy dugal yéen ñëpp daw leen consulat général bu Sénégal bu ngeen demee bu leen laaj kenn nee leen bureau juridique laa jëm bu ngeen demee ne bureau juridique laa jëm ngeen laajte Kumba madame Wele ngeen soumettre ko seen doléance yéen ñëpp seen soxla. dootul nekkati seen soxla yéen de soxla état bu Sénégal lay nekk parce que Macky Sall dafa jël Amadou Diallo def ko consul général teg ko fi pour muy jàppale sénégalais yi tey sénégalais bu am soxla Amadou Diallo day jël téléphone am woo préfecture ba ngaa bokk woo ko ne ko sénégalais sàngam sénégalais bi nekk ci dëkk sàngam mi ngi fii France dafa soxla ay kayitam sàngam préfecture bi dalay woo ba nga ñëw ne la allo diw. ñëwal déposer sa kayit préfecture bee lay préfecture bi nga dëkk dëkk bi nga nekkee moo lay woo la kaay déposer sa kayit ça je vous le rassure parce que dama ko gis te dama ko fekkee parce que nee nañu lu amul seede baaxul képp sénégalais bu nekk sans papier nekk fii France na nga dem sama euh, life yi dama bëgg ngeen jàllale ko sans papier yi nekk France na nga dem consulat général bu Sénégal boo demee na nga dem deuxième étage nga laaj bureau juridique Kumba madame Wele nga ko suñu soxla lii la ak lii ak lii bu avocat kumba dina avocat bi a ah, euh, ndax consulat général du Sénégal am nañ ay avocat yoo xam pour taxawu sénégalais yi un problème la dañ taxawu sénégalais yi foofu Amadou Diallo dina jël téléphone am di woo consulat bi nga xamante consulat bi nga xamante yow euh, préfecture bi nga xamante yow foofu nga jokk muy franc préfecture boo jokk préfecture bi préfet bi na ko citoyen sangam sénégalais bi, mi ngi tudd nangam mi ngi tudd nangam yaayam mi ngi tudd nangam papa mi ngi tudd nangam dafa am dossier foofu préfecture yi nan la ne préfet préfet bi ci boppam mooy jël téléphone am woo ne la yow diw sangam ñëwal déposer si kayit mu jox la sa sa sa sa titre de séjour ndax lu amul seede neexul ndax man dama ko fekkee moo tax maa ngi leen di wax sama mbokk sénégalais ba beneen live ñu gën a yaatal ci Ousmane Sambou le jeune leader Ousmane Sambou ñun. ñun xaaré wuñ ko mu nekk bras droit wu docteur Malick Diop Ousmane Sambou dañ koy xaaré ñu jox ko poste de responsabilité dans l'état sur l'état sénégalais Ousmane Sambou nañ ko jox pro euh, directeur mu nekk directeur général dara Ousmane Sambou nañ ko def ministre sangam Ousmane Sambou dafa wara doon dara ndax Sénégal gëna neex ndax ko xamanteni guddé bëcëk yaangi dox ci soxla sénégalais sénégalais yi dafa yello ñu wax son excellence le président Macky Sall waxal ci Ousmane Sambo joxal ñu Ousmane Sambo poste président Moustapha Niass ñu dañu la koy ñaan jeunes yi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi ñu ngi lay ñaan joxal ñu Ousmane Sambo poste ndax mu jàppale suñu yaay yi nekk Sénégal ndax Ousmane Sambo ku ko jox poste dina jàppale Sénégalais yëpp yëpp yëpp Ousmane Sambo c'est le bras droit de docteur Malick Diop le troisième vice-président de l'Assemblée nationale docteur Malick même gars yi bu ñu xaan-xaanee dañ lay bëmax ñun yow la ñu gëm te ñu ngi sa ginnaaw incha allah maa ngi leen di jox dog daje ba beneen live ñu gën a yaatalaat ci visa Canada yi one love sama gars yi laay bay sa king yaa war